ma laaj leen alquran de defna meddi médd yépp la wax alquran meddi yépp la wax ni xaraam na waaw xanaa kon doo lekk jën de sa jabar bu mu la toggal bu jën bu ko lekk jën ndax alquran da koo xaraamal ndax da koo daganal alquran médd la ndax jën du médd loolu laay laaj ndax jën nekkul médd waaw te alquran lan la wax dafa ni médd bu leen ko lekk ah xurima alaykumul mayta wa dama walaxmal xinziir ba mu jeex mayta jën du mayta la jën kan moo ñu wax ni dagan nañu lekk ko kon jën maa ngi la ciy laaj fan nga gisee daganam ci alquran asalaamaaleykum yaakaar naa seetaan ngeen vidéo boobu ki ciy wax kàddu yi nga xam ne moom la wax wax jooju nag moo ngi ko waxoon 2018 yàlla dogal na defoon nañ ci ab tontu waaye mel na ni ñoom seen gaay yi dafa mel ni loolu bàyyiwuñ ko woon xel ndax am na ñeneen ñu fi ñëwaat di bindaat loolu di wax ne jën medd la ndax kon yéen da ngeen di lekk jën te li may wax rek mooy maanaam euh, surtout ñii nii maanaam ñii nekk ci lu ñuy wax salafiya ñoom damay wax ne ñoom ñooy nit ñu gën a inconscient ci wàllu diine parce que tax ñu inconscient ci wàllu diine mooy ñoom seen wax yépp soo ko bàyyee xel wane ne alxuraan leerul la alxuraan matut alxuraan nekkul lu ñu faram fàcce alxuraan am na lu ca ñëwut am na lu fa leereewut am na duñ fa faram fàcceewut seen pas-pas yépp ci loolu la teg kam ni nga xam ne noonu lañ ko wane ci vidéo bii weesu di wax ne pour ngeen mën a gëm seen sunna soosa te dañ ñëw di wax ne ah kii dafa weddi sunna ban sunna lañ weddi sunnaay sunit yi lañ weddi wala sunnaay chiit yi lañu weddi wala sunna yàlla lañu weddi ndax ku dem ci alquran yàlla sunnatallah lay wax wala mu wax lu melni ni sunnatal awwalin ci lu melni ni xul lilladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma khad salafa wa in yaudu fa khad madat sunnatul awwalin moy na nga xamne non la daan jëflanteeg ña jitu yenent bi ci boppam yàlla benn téere la ko joxoon joxo ko woon ñaari joxo ko woon ñaari téere téere boobu yenent bi ci la daan sukkandiku di wax ci la daan sukkandiku di jëf yéen nag yenent bi bàyyi koo fi ay at yu bari ay nit ñëw sos ay wax taqal ci yenent bi di ko waxloo lu wuuteeg li borom bi wax di ko jëfloo lu wuuteeg li ko borom bi jëfloo ba noppi yéen nag ay nit ginnaaw gi ñëw na leen lii kat ci mbir mi la bokk yéen ngeen gëm ko ñun ñii ñëpp ci loolu lañ ñu yaroon te loolu ku dem ci alquran weddil ko sa bopp yenent bi yàlla ab téeréem la ko joxoon téere boobu ci la daan sukkandiku di wax téere boobu ci la daan sukkandiku di jëf téere boobu moom la yàlla wax ñi gëm ne leen topp leen li ñu wàccee ci yéen mu tukkee ci seen borom te bu leen topp du dul loolu di ko def wéeruwaay li wax ne ittabihu maa unzila ilaykum min rabbikum wala tattabihu min dunihi awliyaa xalilan ma tazakkaruun ginnaaw bi mu waxee ne alif laam miim sood kitaabun unzila ilayka falaa yakun fi sadrika xarajun minhu li tunzira bihi wa lil muminin alxuraan jooju it yonent bi ci la daan moom la daan fàttalee ndax yonent bi yàlla nee na ko fa zakkir innama anta fàttalil yow kat do len lu dul ab fàttalikat yonent bi ci lan la dan fatale ci alquran ak lenen wala alquran rek yàlla lum ko wax fe wa ma anta alayhim bi jabbaarin lu mu ca fa zakkir bil quran man yaxaafu waayidi fa zakkir bil quran waxu ko xuraan wa alquran ak yàlla waxu ko loolu yonent bi tamit kat la won yàlla nee innama anta munzirun momit waxna ay yonne ne innama ana nadirun mubinun sudan xuppe lan la dan xuppe moy sudan avertir nit ñi lan la dan avertiree so en deme batay ci suratu so deme batay suratu an'am aya 19 mi waxne qul ayu shayin akbaru shahadatan qul illahu shahidun bayni wa baynakum wa uxiya ilaya lu undirakum bihi wa man balaga yàlla ci boppam moo koy waxloo moom mu wax ne dañoo wax yu mu jëm ci man alxuraan jii ngir ma xupp leen ci ak jot ñiy wax naan sax alxuraan naka ba yegg yéen yàlla ak ku mu jot ñun nag dañoo jot yàlla dafa wax bi wax ko wax ko ne ko bi ci biir wax ji mu wax ne yàlla moo wax yu mu jëm ci man alxuraan jii ngir ma xupp leen ci ak ku mu jot waxu ko alxuraan ak leneen mooy li may wax damay wax ne yéen dafa mel ni ak njub ñoru dafa mel ni gindeeku ñoru leen loolu nag waxuma salafiste yi rek képp koo xam ne wax yi ñuy wax yaa ngi koy bañ dangaa xeluwut parce que ñun bañoo ñuy wax ñun li yàlla wax képp la ñuy wax wax naa ay yoon ne diine man mii de leer na ma nàññ ne duma tus ci diine diine yàllaa ko moom da ngeen dégg bu njëkk ba salafis yi dañ doon ñëw di wax naan waaw mag ñi fii nangam nangam dañuy wax diine mag ñu njëkk ñi ñuy wax mag ñu njëkk ñi ñoom ña ñuy tuddee salaf yi di ci askanale seen bopp moomuñ diine mag ñu mujj ñi mii mag ñi nekk ci réew mi moomuñ diine diine yàllaa ko moom yàlla mi moom diine moo ko jàngale ci ab téereem jox ko ab yonentam mu jottali ñu ko yonent boobu téere boobu moo ko tax a doon moom ab yonent moom moom téere boobu la ko yàlla indi woon ngir mu koy jottali moom yonent boobu nekkatu fi waaye lañ ko joxoon mu ngi fi ba tey kon ku bëgg a xam loo xam ne yonent bi daan na ko jëf wala daawu ko jëf dangay dem ci téere ba xooli ko ku bëgg xam lu yonent bi daan wax ci diine ak lu mu daawul wax da ngay dem ci téere ba xooli ko ndax yàlla waxloowu ko bàyyi ko noonu jëfloowu ko bàyyi ko noonu da koo waxloo dànkaafu ko jëfloo ko dànkaafu ko loolu ku dem ci vidéo yi danga ko ca fekk kon nak li am solo moy ñi nga xamne dañuy topé mo xam ñi nekk ci walu tasawuf affaire tarixa yi ak ñi nekk ci walu ibaadu yi ñi tuddé ibaadu yi muy salafi mooy li ma salafi yu ne yi muy salafiste yi nañu bàyyi xel ne diine yalla ko mom te ëlëk yàlla du leen laaj mag di wu lu mu waxoon lan la imaam diw waxoon lan la cheikh diw waxoon yàlla du leen laaj xam nga yàlla lu muy laaj lam ñu waxoon loolu la ñuy laaj li waxoon yonent bi ne ko fastamsik billadi uuxiya ilayka innaka ala siraatin mustaqimin wa innahu la dikrun laka wa li xawmika wa sawfa tusaluun jàppal ci li nga xam ne moom lañ wax yu mu jëm ci yow ne ko yow kat yaa ngi ci yoon wu jub wi ne ko loolu kat ak fàtte la ngir yow ak ngir saw nit te dañ leen koy laaj yàlla téereem képp lañuy laaj ëllëg du leen laaj beneen beneenub téere kon bu leen tàddal seen bopp ñu naan leen diw nee na ah déet di wax naan ak kii kat di wax kii kat nee na maam diw waxoon na nangam nangam diw diw yooyu seen wax seeni wax ñoom ak seeni wax yéen ak samay wax man ñoo bokk yem ci diine ji duñ ci leen diine yàllaa ko moom te alxuraan képp nag mooy ak ginde ngir ñi gëm ci yéen ñi yàlla moo wax ci alxuraan ne chehru ramadan alladi unzila fihi alquran mu ne hudan linnaasi nga xam ne alxuraan ci boppam yàlla moo ne ak ginde la ngir nit ñi nit ki su waxee ne dafa bëgg lu gën a jub yàlla ba tey moo waxaat ne inna haadha alxuraan yahdi lillati hiya aqwam alxuraan jii day gindi di jëme ca la gën a jub su fekkee ne lu fekkee ne yow lu jub nga bëgg alxuraan moo cee ginde su dee lu gën a jub nga bëgg alxuraan moo cee ginde suñ ñëwee nag ci kii li muy wax ak ñi nga xam ne ñoo gëm yooyu ñu gëm nga xam ne yeneen i téere ñoo ñëw di wax naan nàngam ñëwul ci alxuraan nàngam ñëwul ci alxuraan ñu gëm loolu di wax naan jën médd la li ma ciy njëkk a wax mooy jën médd la ki koy wax li may wax rek ñoom seen téere yi ñi ko bind maanaam seen ñàkk a xam dara ku koy kuy bàyyi alxuraan da koy xam waxuma ñii de ñi bind téere yi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku sax laay wax parce que nit ki kii wax na jën médd la ci loo natt jën yow ba ne médd la xanaa da nga koo natt ci xar yi ñuy rend yéen da ngeen gis jën bu ñuy rendi su fekkee am na man xaw ma ko waaye jën yi ñuy lekk fii ñoom sompaat ak ya ca topp ak coof ak yooyu dañu leen di jën kay soo leen bëggee wax su fekkee ne am na medd sax laay wax dinaa ñëw ci aaya yi nag incha allah su fekkee ne jën ca boppam am na médd xanaa mooy jën boo xam ne da koo fekk ci biir géej gi mu dee waaye jën kay ku ko génnee ca fa mu dëkk fekkoon muy dund ca biir nga génnee ko yow mi ko génnee kay yaw yaa ko rey tey ñoom su ñuy wax ci diine day mel ni maanaam ak dund ci boppam ci yonent bi la tàmbale yonent bi dafa judd fekk nit ñi di lekk jën yonent bi dafa judd fekk nit ñi di lekk jën te su ngeen demee ci alxuraan li may wax jamono bu ne rek seen ñàkk xam dara jamono bu ne day feeñ yàlla dafa wax ne وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يالا دي wax موم موي كيغا خامن مو نيو تاغاتال جيج ngir ñu lekké ca ndawalug wata boor ndawalug wata boor mooy ndawal lu bees waaw léegi ngir ñu lekkee ca ndawalug wata boor ndawalug wata boor googu lan la loolu jën ak yeneen ak jën ak yeneen ya nga xam ne moo xam ne ñoo maa xeetu fruits de mer yeeg yépp mu ngi ca biir yàlla nee na moo ñu tàggatalal géej ngir ñu lekkee ca ndawalul wata boor لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها أجد دي تي ген اي تاكا يو خما دنج كوي مانا لامبو يو خما دنج كوي مانا تاك وترى الفلك مواخر فيه ويتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يا خنا با تي ني نين غيس ني سي باتو ييغا خما ني دنج ديم اي فواياج اك دي يوبو اي مارشانديز اك نانغام نانغام يو ييب генول تي لي تلي يالا وخات نكو فنن تي بير القران دي وخني وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج متكلا ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون nga xam ne ñaari aay yooyu sax dañoo bokk ci aay yi nga xam ne ñooy mutashaabihan masaani aay yi nga xam ne dañuy nuroo di ñaar ñaaru kon lii leer la yàlla moo ñu tàggatalal géej ngir ñu cay lekkee ndawaluk wata boor ba tey tamit su ngeen demee sax ci sootu maida wax ne uhilla lakum saydul bahri wa taamuhu mataan lakum walis sayaarati وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون nga xamna yàlla di wax na tamit mom moñu daganalal rëbbum géej nga xamna li alquran la yàlla ci bopom moko ko bopom kon li am solo moy nit ñi nañ delu wat ci alquran diko ko bàyyi xel diko setantal diine yalla ko mom nit ki su fekke ne dafa bëgg jëriñu digënté mom ak boromam na fexe ba teg tànkam ci li yàlla jàngaleel boppam su bañee nax boppam wax naa ne leen ñun man mii Cheikh Mbacké Sakho képp koo xam ne yaa ngi seetaan vidéo yi may def xam nga ne li ma ñor mooy fàttali kàddu yàlla bàyyiloo ko xel nit ñi yee leen ci ginnaaw bi nga xam ne suñu borom yee nañu ci loolu nag ñun amuñ ci daara wax li yàlla wax joxe référence yi ne dem leen vérifier ku dem vérifier yaa koy gisal sa bopp soo gisee nag soo toppee yow la sa diggante digganteeg sa borom soo toppuli yow la sa diggante digganteeg sa borom macha allah ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf wassalaamu aleykum